ca papa waaw ba léegi rek ñu ngi ak suñu papa Manga le le deuxième vice président chargé de la lutte traditionnelle père ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di fay. Euh, euh, sentiment bi lay animé rek nga intégré CNG en tant que tey maanaam koo xamante ni tey da nga si am kàddu yore rawatina li nga xamante ne moo di lutte simple muy domaine boobu miin. oui bég bég ci lool parce que mesure yu président bi jël bira da nga koy rafetlu bu baax a baax yaakaar naa ne wàññi nañu licence xale yi. bëri doon nag rawatina mbër buy dugg si ci làmb du feeti 1000 francs loolu dëgg na tey donc loolu mbégte la ci man waaw. loolu moom rafetoon nañ si njort sax. waaw donc yàlla def na ko tey wax nañ ko te dinañ ko appliquer licence yi aussi xale yi danañ ko wàññi donc je pense que le porte-parole va vous dire ça parce que la lutte traditionnelle xale yi seen licence yi 3000 francs la ñu bëgg di fay au lieu de 5000 francs waaw. que tey mën nañ xaar ni maanaam activités yi reprendre parce que eh, nit ñi nam nañ ko. waaw loolu ñu ngi xaar ministre bi ñu ngi xaar le président de la république comme suma président nu muy xaaree rek ñun ñëpp noonu la ñu xaaree. est-ce que CNG tey maanaam yi ma nga amoon si lutte simple di organiser ay journée ak structure. non non non ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir on doit promouvoir la lutte traditionnelle man dañu war a def ci lutte traditionnelle di promouvoir la lutte traditionnelle et la lutte traditionnelle c'est pas les régions. mën nañu xaar tamit CNG di organiser ay tournois lu bokkul ak drapeau chef de l'État. loolu ça dépendra euh, du président du CNG. kàddu yooyu président CNG nga koy laaj moo koy tontu. ñu ngi lay jaajëfal. je vous remercie beaucoup. bonsoir messieurs bonsoir madame. Euh, le comité du CNG s'est réuni ce soir. C'était une réunion de présentation et surtout bon le président nous a nous avait fixé euh, trois points, à savoir euh, la prise de contact, euh, l'information euh, sur la passation de services et, et, des mesures de baisse. Bon, je crois que ce qui est plus important, c'est y des mesures de baisse qui ont été annoncées et qui sont effectives à partir d'aujourd'hui. Les promoteurs en lutte simple, ça passe de 100 000 à 75 000. Les promoteurs en lutte frappe, ça passe de 300 000 à 200 000. Les managers en frappe passent de 50 000 à 30 Les, les lutteurs euh, avec frappe pour leur licence, c'est de 10 000 à 5 000. Les lutteurs simples, c'est de 5 000 à 3 000. Et en plus, pour les lutteurs simples, on a annulé la mise de participation de 1000 francs, elle est annulée. Maintenant, la participation, elle est gratuite. Bon, euh, voilà les points qui ont été traités. en attendant qu'on reçoive la, la feuille de route du ministre pour pouvoir carrément commencer le travail. Je m'appelle Adam Bob, je suis le porte-parole. la question des arbitres des a, été abordée, en fait, mais le président ne peut pas encore euh, prendre une décision parce qu'il doit euh, rencontrer le président de la commission de discipline et de règlement à, après leur travail, ils nous porteront à notre connaissance ce qui a été dit et nous pourrons, prendre, une décision à, ce sujet. la nouvelle commission de discipline. En effet, le président a reçu un courrier, mais pour le moment, euh, il doit en prendre acte avec le président de la commission. Et on espère que les arbitres seront réintégrés souhaitons-le, parce que le ministre nous a demandé d'apaiser la tension dans le monde de la lutte avec un délai d'une semaine. Okay. D'accord. Maintenant, euh, pour le moment, nous allons faire un travail. Le président a donné instruction aux, euh, aux médecins pour lui faire euh, une proposition, comme toutes les autres disciplines l'ont fait. Mhm. À ce moment-là, on pourra se rapprocher de l'autorité pour pouvoir euh, fixer une date. La, la, rencontre a été cordiale. Comment ah vous Bon, d'autant plus que pour la plupart, on se connaissait déjà. Mhm. Donc, euh, ça s'est très bien passé, machallah. On a vu que le ministre a parlé, décliné une feuille de route, alors que le nou tout nouveau président, lui, parle de continuité. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de discorde dans les objectifs assignés. Monsieur, vous n'allez pas, vous n'allez pas. Le président n'a, n'a, le président a fait un lapsus, mais vous n'allez pas lui en vouloir pour ce lapsus. Il n'est plus question de continuité. L'ancien CNG a fait une, une bonne fondation. Nous, nous allons partir de cette fondation pour faire un R plus 5 ou un R plus 6. Ne me parle plus de continuité. On ne fait pas de continuité. L'autre aspect est qu'à un moment donné, il y a des questions par rapport aux lutteurs Euh, ceux qui investissent dans la lutte euh, de payer des taxes, des impôts. Est-ce que vous, êtes, vous allez vous inscrire sur cette ligne ou bien vous allez changer de réforme Nous n'en sommes pas encore là. Au Sénégal, tous les Sénégalais qui ont une activité économique doivent payer des impôts. Donc tout le monde paiera des impôts. Euh, vraiment ñëw nañu tey wax dëgg yàlla muy première réunion bi CNG amoon mais ñu génn ci nag ak mbégte ku ne xam na ni wax dëgg yàlla yàgg na ñuy wax ci licence yi di wax ci lu bari. donc tey ku ne xam na ni licence sans frappe cent mille la doon jaar tey CNG bi ñëw na ak Covid bi ak fi mu jógee ci turu président Bira Sène bi nga xam ne mooy président du CNG ak comité bi fi nekk lépp ñëpp àndandoo nañ ci déggoo waxtaan jëlee nañ ko ci cent mille def ko soixante quinze mille licence promoteur avec frappe jëlee nañ ko ci trois cent mille andi ko def ko deux cent mille licence lutteur lutte avec frappe loolu mu ngi engagé lutteurs yi. jëlee nañ ko ci 10 000 francs def ko mille 000 francs licence simple bi nga xamante ne mi ngi woon ci 5000 jëlee nañ ko ci 5000 def nañ ko 3000 li nga xamante ni tam mooy licence su manager bi nekkoon ci 50000 jëlee nañ ko ci mille def nañ ko mille li nga xamante ni mbër yi nga xam ne dañ daan bëre di def lutte sans frappe daan ñëw bu ñu ñëwee ci stade yi nga dégg bari lu ci daan coow loolu aussi jëlee nañ ko fi amatul. donc nag di wax ni am na yeneen point yu bari yoo xamante ne des na li ñu doon xaar ci ñun daal mooy liggéey donc lépp lu ñu mën a def ba ku ci ne gis sa bopp comme ni ko président waxee dinañ ko def yéen nag presse bi ngeen jàpp ci comme li ñu war moo leen war parce que suñu làmb la pour ñu jëm ci kanam pour lépp mën baax loolu daal moo fi li fi feeñ quoi. non changé wul dara par rapport ak li ma def c'est-à-dire man ku ma xam xam ni dama yàgg sonal làmb quoi. làmb poste non non poste bi. gisuma ko peut-être nit ñi ñoo ko gis mu nekk poste mu bañ nekk poste du changer dara ci li ma doon def parce que man yàgg naa ñaqal làmb du question de làmb peut-être di nga ci toog yaakaar la am pour jël la pour indi ci muy man muy bopp ñi fi nekk ñëpp dañ doon sonn ci làmb ci gratuit ah fii dara nekku fii li fi am solo mooy dëgg nga ci dëkk bi bëgg lii bëgg làmb ñu sentir ne làmb ji dañuy xool am yaakaar ci nit ñi jox leen ko donc bu ñu gisul ci nit ñi doon xaar bu ëllëgee ñu tànn ñeneen tànn bi nag mënoo jël ñëpp ñii ñooy dem tey ñeneen ñëw suba kon yàlla na yàlla dogal li ñuy xaar ci ñun ci équipe bu bees bi ñu def lu romb lu kawe njott loolu te yéen ñëpp ngeen jàpp ci encore une fois merci beaucoup ah. Aïcha ñu ngi ak le président wala le premier vice président chargé de la lutte avec frappe borom Thiès grand ñu ngi lay ziar. waaw Bouka maa lay fay di nuyu waa Lutte TV. tey mu nekkoon seen première réunion prise de contact en même temps maanaam ban impression nga sa euh, tey impression détermination lañ fi gis mobilisation lañ si gis euh, engagement lañ fi gis les gens ñëw nañ wuyu si euh, la convocation du président pour suñu première réunion mais vraiment on sentait à travers intervention yi on sentait à travers enga discours yi engagement des uns et des autres pour que mission bi nga xam ne autorités yi jox nañ ñu ko ñu mu ne ko à terme tey daal satisfaction lañ si jëlee Euh, wane na ni liggéey bi ñu jëm daal euh, yàlla mën na see def jàmm ju am sëkk. première réunion nga ñëw ak ay réduction mu mel ni gaynde mer la fanaano wala mu mel ni dafa am lu bëri lu ngeen góoxoon maanaam pour si si si si liggéey bi. non tombé dafa waral dafa waral ay gaaf euh, dañoo jóge si benn situation bu exceptionnelle muy pandémie bi pandémie bi ku ko wax ak ku ko waxul ñëpp la affecté il fallait à l'instar également de tout ce qui se fait dans ce pays ku si nekk dugal nga sa loxo pour Euh, niñ ko sentiree mu xaw a wàññeeku ñu nit mënuñu woon toog croiser les bras il fallait également ñu dugal ci suñu loxo donc tombé boobu moo waral euh, lii euh, ñu dikk ak avec ces mesures très fortes c'est vrai comme ni nga ko waxee c'est des mesures très fortes mais loolu yëpp wane ni làmb ji dañ ko bokk làmb ji ñun ñoo ko war a defandoo ensemble et que ku si nekk nga defal nga jël li nga si mën defa pour que ñu mën a ensemble réussir mission yi. ñu gis ne saison bi daaw yeggul date yu bëri des ak tey date yu bëri yi nga xamante ne tey gis nañ ay yu bëri yu ñu taxawal est ce que tey naka ngeen mën a def tey maanaam pour pour pour pour date yi des yëpp nit ñi mën ko bëri est ce que tey jotul pour ngeen fexe ubbi saison bi. waaw ubbi saison bi dépendul si ñun parce que y' a l' autorité administrative muy par exemple le ministre et le chef de l' état ñoo jëloon décret ni dañuy arrêter activités yi des raisons de pandémie ñoom it ñoo koy ajiwaat. mais ñun suñu côté li ñu mën mooy la direction administrative njàmme Diop dina si liggéey ak euh, l'ensemble des acteurs tijji nañ clandier des des dates bu ko defee les promoteurs yi amoon date depuis daaw ak ñeneen ñi nga xam ne ñëw nañ au cours de cette saison monter de nouvelles affiches ñooñ ñëpp ensemble ñu teg benn planning boo xam ni ku si nekk di nga si gis sa bopp ku si nekk di nga mën a denc jël sa date bi nga xam ne moo la convenir te du yàqal dara sa prochain donc loolu daal lañ mën a ñun pour le moment à notre niveau les dispositions yi ñu jël di bàyyi nag autorités yi nga xam ne ñoom ñoo gën a nekk au courant de tout ce qui se passe par rapport à cette pandémie ñu jël les décisions finale bu wane ni maintenant Euh, levé nañ décret bi nga xam ni moo suspendoon toutes les activités de manifestation. ñu jëlee CNG bi Léopold andi fi nga xamante ne moo di arène nationale te fii amateurs yi sax dañuy plaindre ko ne des fois lamb day tas avant ñi di génne sax ñuy fay lamp yeeg yu demee noonu tey ak yéen tey en tant que bureau bu bees est-ce que loolu maanaam jël ngeen jël ngeen si ay matuwaay. bon matuwaay bi ñu si jël mooy léegi alhamdulilah ñu ngi suñu kër eh, xanaa nag nit moom bu nekkoon bu nekkee kër jàmbur. ñu ko fay xatal di ko fa bundu xatal di ko naan toogeel nii tëddeel nii lekkeel nii defeel nii bu demee këram defe naa am na sañ-sañu nu ko neex lay tëdde nu ko neex lay tooge maanaam daal nu ko sentiree la fay dundee kon alhamdulilah bi nga xamee ni CNG déménagé na jóge Léopold ñëw si locaux yu bees yi muy si biir arène bi alhamdulilah également bi ñu amee suñu lieu de de de sport personnel muy fii arène nationale donc problème yu bëri yi ñu daa jàmbat dootuñu ko amati jël nañ matuwaay yi nga xam ni li nga xam ni làmb ko moom ñu approprié wu ko ba nga xam ni vraiment lépp luy suñuy manifestation lépp luy suñu bien-être dinañ ko am fii si ni mu waree. le dernier mot kon. le di jaale vraiment famille làmb suite disparition suñu père père Balla di jaale également ñëpp ñi nga xam ni loru nañ si mbënd bi di inviter les jeunes vraiment par rapport phénomène bi nañu revenir sur terre. te xam ni àdduna vraiment euh, yàlla bëri na sutura et que yàlla bi nekk fële moo nekk fii war na mën a à travers yooyu yëpp ñu gën a delloowaat xel yi gën a conscient tuuti que xam ni àdduna bi dund loo ko jënne jar na ko kon nañ bàyyi yenn aventure yi di sant ñëpp di jéem ñëpp di tàllal loxo ñëpp nag ni leen ñu ngi démarrer un nouveau mandat boo xam ni on demande la la compréhension de chacun on demande la collaboration de chacun et que naa ñun ñëpp bu ñu àndandoo waxtaan euh, diisoo war na mën a mën a rafet quoi incha